yooni président bëgguñu nga bàyyi ñu noonu ñuy tànn yow tànnal ñu xoolal ñu insister wax ko loolu mu ne d'accord na jotaay ba ku wax si nga bokk ku ni patt si nga bokk donc jaaduwul may ñëw tey di wax aujourd'hui kii laa faral kii laa faral du ki ci ëpp alal APR du ki ci ëpp nit APR mooy ki gën ci Sénégal parce que l'APR sans le Sénégal c'est quoi zéro donc aujourd'hui gars yi dañuy war a dindi bi esprit clan man tey li ma soxal mooy APR. suñu demee ci Sénégalais yi li ñuy jox yàlla nañ ci ëppale ñu yor dëkk bi ni koy Macky Sall woon di toppandoo ni mu ko yoree woon loolu mooy le plus important mais ay diw laa jegeek moom laa bëgg pour sama affaire neex sama affaire yokku loolu loolu loolu Macky Sall xaaru ko suñu